waaw waaw waaw Fall ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm taxaway bi rafet na lool sha allah Fam jay bay Fall ñu ngi lay sant bu baax sëñ Aydara sant na la gërëm na la sëñ basirou kay sant na la gërëm na la ci taxaway bi Ndiaye jërëjëf yal yalla yàlla guddal sa fan ak kay jërëjëf. lu won fukki atté ngeen bi mo xey ndar lay dem tey léegi nag la tardé te bu dem so yaram dafa xaw lay ma ngi sant yalla bu baaxa baaxa baaxa baax sant biir suñu baax yal guddu fan wér guddu fan wér sëñ bay Fall bay Fall jërëjëf yalla taxaw bi ak yalla may la wéré guddu fan barki yonent bi daal eh, gannaaw sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte kontaan te fekke waat li nga xamante ne daanañu ko taxawee at mu ne te at muñ ko fekkee bu dañuy ñaan yàlla fekke waat ko déwén te yàlla mayaan ñu ko ren ñu ñaanaat yàlla fekke waat ñu ko déwén yàlla nañ ko fekkee jàmm te lépp luñ fi jaamu yàlla ak jàng fi alxuraan ak jàng fi ay kasaayid ak barke mbooloo mi yàlla ñu ko yàlla boole ñun ñëpp ak bépp julli ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii moom képp koo xamante ne rek fekkee nga ko sa xel day dal sa xel day daj da sant yàlla bu baax nga xam ne ne yàlla may na la xeewal yoo xamante ne manoo sant yàlla lii waral yàlla fekke loola ko kon ñu sante ko yàlla bu baax a baax ñaan yàlla daal eh, yàlla nañ ci yàlla nangul te yalla nañ ko yagal leeral may ñu yag ko fekke te at mu nekk tamit ñu yek suñu bop yokute ba ñu yëg ko ci barke yaronte bi sallallahu alaihi wasallam suñu aaji yeb di faju suñu jangor yeb di safaraw suñu njabot di barkel ci barke ali salaatu wasallam. salaam yàlla nañ ko suñu borom boole defal barke yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam jërëjëf Njaay ngeen ko doxal rek non la ñi ngi sant ñep di gërëm ñep suñu xol sedd na guuy ah li ciy dolli rek moy li señ bi dénkaane nañ baye xel señ bu baax ci melakan yi ñu wara meloo melokaan yi ñu melo woon nag sëñ Tuubaa ku ci ku ci bëgg a bokk da ngay am melokaan woo melo woo nañ na gone yeeg jigéen ñee soppi seen col mi soppi seen watiis yi soppi seen doxiin yi soppi seen waxiin yi parce que kat génn nañ yoonu murit génn nañ ci ñu bari génn nañ ci te yëguñu ne génn nañ ci am na comportement yoo xam ne boo ko nee rek yow ba bàyyiwul sëñ bi sëñ bi bàyyi na kon nag nan del waay xel bu baax li sëñ bi wax léegi it bu ñuy màggal ñaari rakka ku ne xam ne ne sëñ bi alxuraan la jeex tàkk ak jaamu yàlla jamu yalla dara wu ci jang alcorane ak julli kon nak ku war nako baye xel assalamu alaykum wa jere jeuf Ndiaye. waaw sëñ bi day bég bes bi mom tay dañ ci bég lol parce que dafa reey ci ñun parce que bi bam koy def bopam taxuloon ñun ñi mot ñun ñii moo ño tax donc dañuy ñaan yalla di ko at mu jot té ñi ko ñi ko di organiser yal na len fi yalla yagal dafa len taysir barke sëñ Touba kontaan nañ bu baax wax ñu ñaan yàlla ñu teewe ko ay déwén déwén yu bëree bëree te déwén bu ñëw ànd euh, morom ji daraje yonent bi sallallahu alayhi wasallam barke sëñ